màggal gi moo di ndigal len nu lum fi waxal boppam te daa ko digal murid yi koy gëmate màggal gi moo di ndigal ay Aca comme nu leen ko waxee waroon ñu ngi fii Touba ba léegi di euh, daleen dëgtal loo xamante ni ci euh, màggal Touba gi ni ko waa El Vision Médias defee di war kilif këru diine yi nga xamante mooy programme yi nga xamante am na fa lu mel ni ay màggal ak ñoom gàmmoo yooyu noonu mais pour l'instant suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moo woote waaye tamit yóbbu gi nga xamante ni euh, suñu noon yoo yóbbu woon muy Touba waaye bañ demee am ci ndam ndam Touba ca kanam association Touba ca kanam nekk li nga social la lépp loo xamante ne war na ci euh, li nga xamante moo jëm ci jumaa ji ñoom ñoo yor euh, domaine boobu ñu fas yéene waxtaan ak kenn ki nga xamante ni bokk na ci responsable dañ koy bàyyi mu présenté salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, la Modou Lo Ngabou le commissaire au compte de l' association Touba ca kanam waaw. lan waral Touba ca kanam. waa Touba ca kanam day xanaa di ko tontu mooy. ni tour wi mel rek moy Touba jëm ci kanam donc moy association Touba jëm ci kanam mu nek association bo xamni ay mbolo yu gëm seigne Touba bëgg ko fassiyene ko liggéeyal ci dëkkam bi lool rek mo leen taxoon juk euh association bi nak bañ ko commencé ak légui yagagut pour fatli la tuuti rek ci historique bi danaka amna at ak fukki wer fi may waxe yow ni at ak fukki wer lañ amagone ñu am nag ay projet yu bëree bëree bëri yoo xam ni si association moo koy porté projet yooyu nag bi ci gën a rëy mooy fas yéenee am ñaari murit ñaari ñaari millions yi murit ñaari millions yi murit murit bu ci nekk chaque mois nga cotiser 1000 francs weer wi ñu war a am 2 milliards at mi ñu war a am 24 milliards ngir ne bu ñu amee 24 milliards yooyee day lépp loo xam ni si Touba soxla na ko ci développement boobaa ñu meñ cee kenn defal ko suñ bopp loolu mooy suñ première projet bi nga xam ne ñu ngi ciy dox muy 2 million de mourides boobu nag mi ngi dox mi ngi avancé bu baax a baax a baax ba xëy na àgguñ liñ bëgg muy am ñaari millions yi muy objectif bi waaye fi mu nekk nii am nañ ci ay membres yu bëree bëree bëree bëri. ak yeneen projet yoo xam ne si nii yu bëree bëri yoo xam ne si nii mi ngi fi war nañ koo war nañ ko war nañ koo réaliser. sama question da ngaa tënk lépp sama dernier question mooy Touba ca kanam euh, ñi fiy liggéey euh, muridi rek la wala képp ku ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah euh, waaw question boobu de tontu ci dinaa ci kontaan lool lool ndax Touba ca kanam ñëpp la woo ndax lu baax ñëpp ko bëgg. waaye nag xëy na woote bi dañ koo jagleel ñi nga xam ne si ni dañoo bokk ci waa kër Sëñ Tuubaa donte nag képp koy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah rek ci waa kër Sëñ Tuubaa nga bokk ndax Sëñ Tuubaa moom euh, dane woon man mu jaddid laa li yonente bi woote woon ba jóge fi man damaa ñëw ngir yeesal ko kon képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illallaah rek jàpp nañ ne ci waa kër Sëñ nga bokk kon ñëpp lañ ci woo waaye nag xëy na ni ñuy wootee wala ci suñu langage yi ñuy jëfandikoo rek dañuy wax ne 2 millions murit la ñu soxla waaye képp ku murit te bëgg cee bokkit ubbi nañ suñuy bunt fépp ñëpp ngir ñu mën cee ñëw ba tax na fépp foo xam ne suñuy support la financière nga xam ne nit mën na faa jaare la xaalis ubbi nañ ko fii may waxee yow am nañ lu toll ak juróom-ñeenti compte bancaire nga xam ne fu ci nit mën a nekk ci àdduna bi muy Europe États-Unis Afrique fu mu mën a doon rek boo bëggee sa addee dugg ci Touba ci kanam dana ci dugg bu dee ci biir réew mi tamit bépp xeetu transfert d'argent yi xëy na damay bañ a tudd tur waaye fu ci nit mën a nekk rek boo dugalee sa addee sa addee dana ñëw addee yooyu bis bu egsee ci ay loxo yu set ci lay nekk danañ ko denc denc boo xam ne si nii yàq àggu fa buñ ko dencee ba pare xaalis boobu la koy génne lu leer naññ la te day doon farata xëy na euh, bëgguma guddal lool lool ci suñ procédure financière niñ koy doxe waaye képp xam ni Touba ci kanam di doxee xam ngeen ne Touba ci kanam doxin wu mucc ayib ci lay doxee ci wàllu leeral ndax suñu ne genn Fatma danaan wax naan taalibe yi nañ leen laaj lu ñu man nañ ko dugal it fu ñu xam logique boobu nag ci la Touba ci kanam tënku di ca dox. incha allah incha allah mi ngi mi ngi noonu Touba ca kanam gis ngeen li nga xamante ne mooy social bi nga xamante ne moom la ñuy def fii ci nga xamante ne mooy sunu dëkk maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou ak 2 millions murid yi nga xamante ne moom la ñuy laaj eh, di ko cotiser chaque fin du mois 1000 francs ñu ci def ay social ak eh, ambulance santé lépp mi ngi ci biir Touba ca kanam su ko defee dañuy dañ koy bàyyi mu joxe dernier mot rek incha allah rabi ñu tàggatoo demaat ci yeneen eh, bërëb incha allah waaw dernier mot de mooy di sant taalibe yi nga xam ne ni ñoom ñëpp participé nañ ci dañ xam ne liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa moo ko moom comme ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee ñi ci nekk di yëngu duñ ca dara lépp Sëriñ Tuubaa ci moom lay jóge te ci moom lay delluwaat te it li fi jot a nekk dara tax koo jug lu dul Touba association bi dañ koo créer pour Touba jëm ca kanam kon wuy na aw turam loolu nag dana ma mën a may kon ma woowaat sama mbokki taalibe yi nga xam ne si man sañ naa leen a soññi ma soññiwaat leen bu baax ne leen nañ ñëwaat jàppaat ci liggéey bi. ah ab liggéey ak ni boo xam ne si ni day man de am naa yaqin ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko tey képp ku ci dugal saw ñaq dana àgg fa mu war a àgg dana dugg fa mu war a dugg tey lu sëñ bi nangu la te danañ la ko fulal kon di soññi mbokki taalibe yëpp rek ñu gën a ñëw jege si waat ca kanam ndax li ñuy laaj jëfewut murit bu ci nekk 1000 francs par weer 1000 francs par weer moom yaakaar naa ku ci nekk ci ñun di mbubboo Sëñ Tuubaa wala ngay wuyoo Sëñ Tuubaa Sëñ defal na la lu ëpp loolu kon nag maa ngi encouragé sama mbokk taalibe yi ñu ñëwaat bokk ci yéen it ñu ngi leen di bu baax a baax yéen waa El Vision Média ci seen liggéey bu rafet te di sant bu baax ñi nga xam si ñoo leen di suivre ndax liggéey bi ngay def vraiment am na solo lool te ñu ngi koy sollicité bu baax xanaa di leen encouragé rek di leen wax ne dal leen ak jàmm ci stand Touba ci kanam stand parce que fi lañ nekk di wéyal liggéey bi rek incha allah.